affaire bi benn mbir ci nekkee temps la sa nga am ci vision. parce que nee la nit investir na investir ci maîtriser tu peux pas être un paysan et que derrière tu bëgg ne da ngay pour bay da musique lañ musique donc et on a des stratégies pour faire de la musique notre gagne-pain. même si à côté on a autre chose. Mhm. qui n'a rien à voir avec la musique tu vois donc loolu définir plan léegi nak maag sama gaay on se concerte chaque jour donc di shout out aussi pap Sada an bima andal tay pap Sada pap Sada tu vois. pap Sada déviant la boy <laughs> kon nuyu gars yi kii déviant la sànq ba de suma waxe dara gars yi xam nga. xam nga eh, mu lay jéem a retaan gars xam nga di shout out en même temps tamit euh, gaay du dugal ci naan bi léegi Noré ni Vito xam nga Mbour 3 yëpp tu vois. donc euh, mais sang yaa ngi doon relations c'est lui uh-huh. le ménager ou bien. Euh, bien sûr bien sûr jox ma ko maa ngi ko gars yi. gars yi ñoo nga fay tele gars yi fii gars mu ñëw nii ah gis la gaañ pour nga feeñ quoi xam naa lenn moom ngay toog yëpp. naan non ji gars woo gars yi mu ñëw mu wax si benn mot comme ça gars yi dégg ma quoi xam nga su ko defee boobaa su ma demee koñ ma gars yi naan nuyoo météo. ba tey yaa ngi suivre. Mhm. yaa ngi gis lépp. Euh, sa artiste BABS. Asku mhm. Music. Mhm. Euh, tey lan nga ma mën a wax. par rapport ak Joe bi nii seen liggéey ak seen euh, relation. par rapport ak li nga xam ne tey. xam nga mu ngi si quoi te musique. yaatu na yaatu goo xamante carrière bi yag na yag go xamanteni euh ku xadi rek après moy loolu quoi effectivement bon déjà mang ngi lay maa di nuyu nuyu Gigi donc c'est la première fois am occasion mhm. donc rencontre la yéeman ça fait plaisir yàgg naa la dégg yéeman am aussi bon maa ni nuyu Babs du Vistar yéeman di nuyu ak Las bi taxaw fe ce trondo mi taxaw fi aussi à côté mi ngi ah yow ne yow foo las nga. foo las nga. di jéem a di jéem a di jéem a di sàcc tur. mais mais las kii moom foog ñu porte ko plainte. effectivement di di nuyu ñëpp auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi déglu Zik FM Thiès. bon effectivement déglu na question bi et que bon dama ci sawar a tontu. parce que moom mi ngi nii il est témoin. Mm-hmm. parce que je pense que c'est la première fois ma toog di wax en fait. parce que j'étais toujours derrière tout le temps maa ngi nekk ci gannaaw en fait. parce que li ma sekk man ak moom nekkul sa personne en fait comme li ma koy far wax tout le temps bu fekkoon ne que dafa am leneen looy jaay sax loo xam ne dañ koy tere en tant que sa xarit ba ma ko waxee ma jàppale parce que sama waaye nga en fait quoi donc attends rien de lui comme li ma koy wax tout le temps rek j'attends rien de lui lenn rek moom ci doon yaa ngi wax depuis sànq nga ni que maa ngi reetaan en fait reetaan ma ko parce que défiant la mais dama non non non loolu samay délire la gars effectivement j'ai compris mais dama ko reetaan parce que mhm. tey mhm je suis fier de lui en fait. parce que man dama fi nekk dama fi nekk dès le départ. Mhm. xam nga. Mhm. donc bi ñuy commencé je l'ai connu. Mhm. xam nga. te boo seetloo ah son yu mu la defal yëpp tu vois te pour ñëpp dinañ poser question naka lay def pour bind. on sûr mën naa ko jëlu ko jëlalu ko temps ah da ngay bindal gaa yi ñu xam na lépp gaa yi lu mu nekk nekk nekk sa copain da nga koy jàppale lu mu nekk sa copain da nga koy jàppale bab si li muy rab yi yëpp bind ko non non non parce que parce que yàgg nañoo ànd man ak moom ñu jël mbokk bi si ligne bi 88 628 37 37 allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo yaa ngi si biir de yaa ngi si biir yaa ngi si biir

fii ICAO Thiès ñu bokkoon classe man ak moom mais yéex nañoo fréquenté man ak moom quoi. da ngay comprendre. Mhm. léegi bi ñu commencé toog man ak moom mu ne ma saawaay bëgg naa ñu xamante ñu xamante man ak moom. pourtant fa nga dëkk ma ne ko man parcelle. moom pourtant man mbuutaal la def mën nañ jàng mën nañ di révision doo man ak yow man ko coo jëbul ok koor la woon quoi mhm. ñu ndogu pare ma woo ma dem gàllam pour une première fois ah, dafa nilaar nag de ñu dugg xam nga nilaar boobu noonu ngay mu nilaar ngay dina jéem dina jéem waaxu dañu bas yow ba bàyyi teg jil ngay ni xam nga munoo pare di ngay ni diw di wépp sa waay ñu dugg man ak moom ñaari exercice lañ def mu génne ordinateur bi mhm. dama saay kaay ma jam la son comme ça mu jox ma ma ne ko am naa gaa ne dañuy dóor son sama koñ mu jox ma ma déglu ma déglu depuis jour boobu noonu ba léegi mm-hmm. on est comme ça ñu ànd man ak moom léegi nag moom ñu mm-hmm. ko wax tout le temps mm-hmm. su ma la déggoon xam ne que lii ngay def wax dëgg yàlla comme ni ko gars yi defee da man maa lañ ci fa def bàyyi nga dem nga toog xam nga mais j'écoute ses sons su ma koy déglu du moom laay xool en fait. damay déglu et j'en compare en même temps li nga xamante ne moom laay gis. mais su ma déglu man ça c'est important. li ngay def ak li ngay def ak li gars yi def amul différence. bien sûr pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ñu nekk ci ñu nekk ci nekk ci phase boobu noonu. di dem di mm-hmm. dem di dem ba tey moom moo indi lii en fait quoi. maintenant boo ko xoolee nga déglu ko nga xam ne actuellement il est précis. Mm-hmm. loolu tontu nga xam ne il est précis. Mm-hmm. boo waxee nga xam ne kii il est concis kii xam fu mu teg boppam la en fait. donc ça n'a pas été facile. c'est tout un cheminement en fait. comme on dit rek comme li nga wax sànq talent bi mi ngi fi lépp mi ngi fi. mais li may wax tout le temps rek mooy ni que c'est pareil peut-être pour artiste bi wala aussi pour yéen ñeen ñi fi nek en fait xam nga mhm. parce que li may faral di gis Sénégal moy ni que la plupart ñi fait ñi fi nek ñi ngay dégg ils ont été ci ben canal la jaar ba en fait n'est-ce pas mhm. je pense que fini ties lool mo moo manqué mhm. xam nga lool mo manqué pour que jeune talent yi ñu vraiment dem fu parce que ñi nek feneen di def rap dak ñu leen rap bu sax pour ñu leen technique lool ëpp ñu même même yow la cas de Gigi may ñëw concept j'entends l'intonation de loin tu dégg nga waaw mais attends kii lan moo tax gars yi duñ ko dégg ci kaw scène yi pourtant boo mm-hmm. déggee intonation am mm-hmm. automatiquement ça te capte en fait est-ce que comprendre nga mm-hmm. man je me fii kenn moom fi dara kenn moom fi dara te kenn dàqu fi dara comme li ma ko wax tout temps rek li mo nek sama kanam dara mënu ma ko xaajal dama ko dem jël par force mu nekk bul sax sonn gëm sa bopp loolu moo fi nek en fait donc ties il est temps que les gens mettent le paquet fi ken mom fi dara et on prend tout et on avance il y a pas autre chose il y a pas autre chose jaba en tout cas félicitations à lui mais en tout cas toi aussi félicitations toi aussi mu gën a continuer si lancer bi rek mm-hmm. il est majeur il est majeur xamna li mu bëgg te xamna ni que rek bu defee li ci war def rek facilement dina avancer. en tout cas euh, en tout cas bokk na ci génération yi. nga xamante actuellement nii niveau Thiès. ñoom amuñu droit mhm. def erreur. bien sûr amoo leen droit boobu noonu. surtout euh, tey yàlla dafa def sens tamit ñoom seen génération ñoom ñëpp a xamante. Euh, bokkul comme première génération bi tey jii yéen ñëpp a xamante yéen ñëpp a ngi demalante lii rek témoigne kii la waa Vista rek xam nga mu ngi koy témoigner ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi toog du déglu mooy loolu comme lu wax rek affaire yi amul euh, newuñu kenn yow yaa moom rabbi wala diw moo war a tekki wala keneen moo war a tekki la nga gëm ko job daal di de loin l'adresse après mooy loolu en tout cas c'est ça quoi euh, jo euh, projet yi nga xam c'est à venir déjà am ben benn projet boo xam déjà génn pare te lu ko muur peut-être niveau Covid beeg yooyu détail demee noonu mais en dehors ça si biir lëlu bi yëpp lan nga doon job ak tamit peut-être après euh, Covid bi euh, lan ngay waajal pour euh, sa gars yi nga xamante ñu kii en plus tamit surtout si côté visibilité surtout ñu gën a xam kan mooy Babs quoi kan mooy BABS parce que xam nga loolu yaakaar naa moo moo gën a des job boobu noonu surtout job job boobu moo gën a des quoi gars yi découvrir ko carrément quoi carrément carrément quoi bon comme tu dis rek donc euh, ñu ngi ci liggéey bu am solo. Mm-hmm. donc euh, sunu projet guen na en mm-hmm. décembre. Mm-hmm. donc aujourd'hui sax bon vu que concept émission bi live la. donc dañ ci cof touti rek. pour li li projet bi guen noonu. guen nañ ko en décembre dugal nañ ko dans les plateformes internationales. donc gaay yi ko wara découvrir découvrir nañ ko te protéger nañ suñu droit donc la deuxième chose moy ñun de notre côté. Mm-hmm. on est plus présent sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. mais comme tu dis. le rap mais la base les réseaux sociaux c'est bien beau Ben, Gigi Nek, fa rek naan gars yaa ngi kii di posté rek di di partage mais tey. Euh, benn BABS tey ji jombul tey def benn concert fini, si si si si promenade moom kese mu fees quoi mais le liggéey à la base là. job la à la base comme tu dis. Mm-hmm. te lépp rek mbedd bi la. rap rap juddoowul ci internet bi. rap ci mbedd bi la juddoo. donc loolu noonu yëpp c'est un cheminement ñu ngi ciy liggéey te donc depuis lors aussi euh, projet bi ñu koy jobé 3G Team Record ak Bizarre. Mhm. depuis boobu ba légui maa ngi fa di job sama son di job sama projet et bientôt bientôt dinañ fi ñëwaat sax ci yeneen ni anam. pour gëna développer ay projet yu. mais nag mais nag gars xaar quoi paré nañ. mais surtout ci côté visibilité quoi parce que euh dañoo am tendance niveau Thiès comme Joe nu ko waxee rek euh da ngay gis lépp mais toujours pourquoi le gars yi wax quoi mais mais gars pourquoi gars yi BABS gars yi gagne. gars pourtant rap rek la quoi mais gars xam nga quoi mais mais mais euh, euh, loolu noonu euh, pour man xam nga il est temps quoi. non fay jeex lolu jeex na en fait. il est temps quoi te franchement trois dernières années yi moom franchement xam nga rien à dire quoi. parce que gars yi xam nga. maa ngi dem fu nek foot, rek foofu fa la demagul. mais foo dem gars yi soo nee mhm. Thiès nan la wax ay artistes. niveau mhm. Thiès xam nga fait fee léegi dem mhm. des fois nga dem tamit yenn zones yi fekk fa tamit ay artistes thiessois. ñu tamit ñu ñëw fofu noonu tamit là aussi tamit c'est quelque chose bi nga xamante ni euh, quatre dernières années yi xam nga ça avance te war na war a gën a avancer quoi. mu gën a gaaw effectivement effectivement mooy li nga mooy li expliqué léegi parce que boo xoolee ni mu toll nga xam que derrière y a déjà un parcours boo xam ne def nañ ko ba pare quoi parce que comme li nga wax conseil bi ngay wax je pense que en 2017 def nañ concert Mbour 3. intronisation ok ci sa itam quoi nekkul woon mhm. amul partenariat bañ a ko ci affiche bi sax dafa defoon 00 sponsor en fait quoi donc ñoo jël de notre propre moyen ñu tek concert bobu non xam nga donc comme l'a expliqué rek nous tout le temps que nous discuter on te dit par exemple il faut que vous ji sentir maintenant une évolution en fait quoi sentir actuellement parce que des fois ça arrive il y a des nga mais ni j'ai vu qu'effectivement effectivement début janvier bi y a une une différence en fait quoi maintenant par rapport à la visibilité effectivement, il y a un travail qui se fait bien sûr parce que moi, mhm. on a eu à faire on va pas citer le studio hein. mhm. il est là ɲini mhm. on a fait des studios sur Dakar hein ah, ouais ouais ouais gars da nga jéem a takkale rek gars nga jéem a takkale ah, bien sûr bien sûr on a fait on a fait des enregistrements des sons par exemple ñu ñoo def mooy ni que genre dañuy dem dans le studio on mhm. fait des on discute avec les gens mais mi ngi nii dem nañ ci benn studio bu nga xamante ne actuellement am na koo xamante ne mi ngi fay carte la ñëpp nga koy dégg mhm. mais dafa dugg def bi son bi jàll léegi one shot one shot son bi kenn prise du ko ñaari yoon suma bi jaal na sànq hmm. kenn prise du ko ñaaral kenn dugalul dugalaat one shot la ko prise waa ji doon waa ki doon dafa ne mais daan kii fu mu dëkk mu génn mu ne ko mu ne ko. caas na dëkk mu ne ko mu ne ko jox ma ko amul feneen mu ne ma mu ne ko mu ne ko. bëgg naa sa projet yàlla nañ ma ko jox bëgg naa liggéey sa yàlla nañ ma jox sa projet mi ngi nii taxaw man. d' accord en tout cas. saa su ko euh, tuutee euh, mhm. rek. Mhm. discuter mm-hmm. xool les canaux pour mm-hmm. voir ci visibilité yaakaar naa incha allah yéen yéen a ngi fi comme ni ngeen di c'est déjà bien ñu ne fii kii dina dina baax quoi ñu gën a avancer quoi Bab Sathié ñu def su suñu las deux dernières mais yow aussi hein. yow aussi Gigi William yem Thiès quoi yeboon incha allah y'a y' a tout mm-hmm. xam nga ñaari son mi des yi quoi voice bi am na groove en fait concert amee da ngay toll fële boo déggee boo déggee voix bi rek ngay xam que kii vraiment ça capte. non Gégé bandi la Gégé bandi la. respect respect respect xam nga. Mhm. respect quoi. si si si affaire yi moom xam nga li li li libéré wu la en fait quoi. dugal fu la neex defal fu la demal fu neex quoi. inshallah allah incha allah las yow da nga bëgg fayu las mais mais machine baa ngi nii. eh Aziz s'il te plaît. Eh, las par. Ziz machine di jël las baa ngi nii. las té ñetti machine la indi fi te dara baaxu si las acca te baxal waaye di te las gayen acca BABS. BABS, extra music. Yes. Flow with me, boy. Hey. Hey. Flow with me, boy. Hey. Nera Viv patu. Nera Viv patu. Partagez com partout. Hey. Hey. Ah. Uh. rappeur yëpp bëgg CFA waaye kenn du ci franc dëgg rek ba may dee baay yokk muslu sa temps bring it love to my time bring it love to my time bu la neexee def gang waaye moom sa assure day indi fi lexi bu high yëkkati mbind bi dafa mu accessible soxla ñu déglu sa life yokkal ma bit bi may teg lu lay asphyxier sama vidéo woo di ko replay zone bay amu fa beach friend mën a gaay ba dëggantaan la ah ma def différence Flow be the kitchen boy our best jolo hit You feeling my zig Def chilling I killing this boy Mën nga rap take ci hard nga flow jaru waaj di nga waaj ma Automatic, no automatique nga my teeth. tiit ci mbind ci biit indi nga coow can kanam da ko gis fépp ba ma soxlaa ñëwul FaceTime nag ma def au Nigga buy nga bàyyi I check gaan damay bëgg with bar sama man the face, ba ma take nine chuck, cak ba mu mat says? jaru joxe high deadline su jooy nekk the service rapport yi photocopier mais léegi ngeen manqué dig up ma digg fi jaxase in the di pompier génn ci origine original ñëpp a ngi mel ne ay faux pieds bas a ngi ràngale flow yi lay ràngati ñëpp a ngi mel laajte du dóob yee wallaay doon ñi wallaay zombie daga maa ngi rab booy dara duma dal booy tey ngay jommi ragal ten taw caabi di ko doon taw jara si di beg taw aja sunu duy fu mu ndiga jolo benn daan dinga jara kenn du ko dinga ba benn seen bega au oh, fool raate différent boss benn la teer tërleen su leen wàccee benn benn xam naa du ma messi loolu du hasard ma lay tenc man xam naa sama defi lu fiy bazar damay change plan jaru di métti di wolofal rappi bu naaj la jéggi di toroxal kalama yëpp boy na rafet rap Sénégal dina jéggi sa parawal sa waram piis piis dem di sori sama gis a gaay fa ñu gis gis ey mën a gis gis ey mën a gaay fa gis gis Hey, man, I got it for the kids, jeez. Oh, my nigga, flow with me, boy. Oh, my nigga, flow with me, boy. Yeah. Yes, sir. Hey, no so life coffee. No violence. BABS. Das Kümmel music. No yes. I Hey. Hey, Gellas. Come on. King of Japan, Eno Sonic at the Bobo Nigga Molly Shotgun. Eh, Wallahi mole shotgun. Fi. Finger dropping innocent, they cut the bubble nigga mole shotgun. Eh, eh, Flowing nigga boy. I do not better for chair. Woke up the first suburb from the change man, no dog ain't no violence. Hey. Eh. Lu tax nga namb jàmm ci sa bopp loo ci keneen da nga dox bis ay eh. muy daala wala gold jàpp euro wala lu mel ne diamond fës le moomu loo ko bàyyil mu sedd li ne sa xel mi dafa toxique àdduna bi dafa jeex boo ko defee sa war nga change mën a doxee no violence fës lu tax nga namm jàmm ci sa bopp loo ci keneen nga dox fës lu tax nga namm na way lu mel ne diamond ci ah. Sénégal nu mu fa demee nii man xàmmetuma ko ba delloo ci ay décennies na nga def maa ngi fi dalal jàmm ànd mbokk yi ba kenn nga watul sit nga amul stress nii كنا لالنا جام جام لنتي سدو خولي ساند بان بملني جيدو ملغي غاش دافاي خوا ملني ريستو لانارشيزم اكسبلوز كو وقت ديف لا ستيك تشوب منو ما ايماجينا يانا خيتو بارباري ديرت جي تورو دون سك ندخ دا باري قالو سيطان كوتي نافيغا ياي ديك دي نانال كيف كوفي جوتا دم اي راي بي let me hear you say violence anymore the bubble legi can apply ke fii da ngay toog sa gaale ndekte yaa ngi denc zone tan bi di mel ne faa wees rakki jakki chat la gën àdduna bi dafa jeex boo ko defee sa war nga change mën a dooxee no violence lu tax nga namm jàmm ci sa bopp lor ci keneen da nga fis muy daala wala gold du jàpp euro wala lu mel ne diamond ey yow moomu loo ko bàyyil mu seetali ne sa xel mi dafa toog si mais li est-ce que la yenn saay xabaar yi dal may laaj est-ce que du tuum jikko yi soppeeku ni dollar laa fi gis man ku mën sa morom cob le reste on maîtrise man seen défaillance ci loi bi jur fi ñaata impuni innocent ne ci jël si ko pat ne di def buri yi la jëf tilim ay mineur yu def kirim yëngal ministère de la défense mel na Steph Curry dafa yéeme waay li xew ci àdduna bokkee sib ali waay am na loo ciy gis mais lu ëpp làqu yenn guerre yi def fi waral Afrique bi lépp sànku néega munoo compli ko lal ndax lépp dil la diggante nguuru marionnette tubaab bi njiit la coopération yu bazardé sa économie suufu sol bi télécom yi ku si ñàkk xanaa piip jàmm amul fenn ma bamtu war ko seen teraanga amul fenn Yo krijgen wel bekende doel of actie daar. Jij is een taxi man in de klate uit elkaar. Ey, de kubok gaat net jaren laatje per me portaam. Bij jij geen bal rijden in laatje met een portaam. Nu gaan de boeien rijden in de trek in een je kontaan. Bom me gissel, is eh, dat de bij, please nou me compraan. I do not bid a for jay. Boko de fe sobo pour nga change mo no do hay no violence. Lutaka na mo jamo chi sa bubble lo chi kenan dango do fist. Ey, eh, ey. Eh. muy daala wala goldu jàpp euro wala lu melne diamond eh yo moomu loo ko bàyyil mu seddali na sa xel mi dafa toxique yes my gang merci beaucoup gang follow my gang yes sir jox ma follow my gang BABS aha uh-huh. yes sir ok BABS ok ok euh, ñam ci tuuti rek temps bi euh, temps bi xoj nañu ñam ci track comme ça boobaa xam nga ñu mën ko euh, démarrer quoi acca acca di rappeler auditeurs yi actuellement ñu ngi suñu dernière ligne droite n'est-ce pas acca las gaawal saison comme ça ñu tëjee ko en beauté n'est-ce pas ok c'est bon acca c'est parti ay ay pala boy ay what a boy pala boy boy I just wanna rap it for my gang Flow with me game boy the road to test boy no will kill I be I be flexing for my life always yeah um, Follow my gang yo, follow my gang yo All my niggas follow my gang yo Baby, tell me, I just wanna know. Suma naked, summer ganga, make all do my know. Low palm could shit, sexy money could the bitch. Zero hero, man, the Will Smith. Nigga want to get rich. Longer blood, wall of crips. Don't put a chip on the shifts. I just wanna make it hit list. Let me, let me go. Niggas wanna rapping, but they don't know how to trap in. Floaty packing, lale, tajil, jarol, malay, lacha. Buma dewan, buma tali. Tanka, oma Ferrari. Lick it, budul, khachi, valis. Kon bugi, yukhul, c'est la vie. My freak, bullshit. my buddy IG. Ben kan op jij dus? Fuck face ID. My nigga wanna go flex. Coach je galis. Arme gun, fire bun. Dat ik nyo Tel Aviv. Hey. Eh? I just wanna rap in for my gang. Blowing biggie boy, that I do this boy, no one girl. I be, I be flexing for my life always, yeah. Oh yeah, oh yeah. flexing on my way, yeah. Hey, I be flexing on my way, yeah. Uh, uh, I say holla up, my nigga, holla up. Rolling fucking cash, I'm a driver. Young nigga, fuck my coach, so my dollar. You're the tech best, but you dollar. Uh, and for my gang. I do it for my gang. Hey, eh? mm. pick up all the fam, celebrate, make a dance, huh? Mangi bigger some guys, Dello bigger some guys. Luma jacket ding a fight, hey, eh? man for life. And for my gang, and for my gang. Yes. And one love guys. A big up guys, hey, eh? and for my gang. Yes. I do it for my gang. Oh. Hein? Flow me, but. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. BABS, ASQ Music. Merci beaucoup. Euh, Didier Las. Merci beaucoup. Auditeurs, nous avons en ce moment sur la fréquence 92.3. Samasik FM C'était cette émission sur Live Covid. En direct, si sur nos plateformes digitales, YouTube, Sama.